nga naan bëgg nga. yow mënoo gagné sax sa bureau de vote. Mm-hmm. bis boobu am nga lu la metti de. Ah, am na lu ma metti mais li ma metti du lu ma Farba Ngom wax. Mm-hmm. du du lim la wax moo la. metti xam nga Farba moom xamul sax xamul sax boo ko laajee lim réere bi xamu ko ndax ñett yitteelu ko. Mm-hmm. xam ko. diine yitteelu ko ngor yitteelu ko. moom géewalu Macky Sall la la wax ni moom la mais kooku kañ bu la bu la defee nga mer ci yow la yow yaa yaa yaa matul li nga doon ki ñuy mere mooy ki ko tabb ba jël parti bi euh, ndombal tànk bu day ni massification ak mobilisation nga romb kàngam yi nekk ci parti bi kenn xamul nu ñu toll mën nga ko def sax kàngam goo xam dafa bokk ci coalition bi parce que dara terewul li ñuy doon doon parti présidentiel di di alliance pour la république bokk ci coalition bu rëy bootu ci président Macky Sall di Benno Bokk Yaakaar président Macky Sall sañ na wañ loxoy parti ni mobilisation ak massification dama koy jox kàngam bu nekk ci coalition bi parce que coalition bi moom mooy mobiliser coalition bi moom mooy euh, massifier mu jël ko teg ko ci loxol ku mënul bind mënul liir bu ñu ko waxee yow yaay kan mu ni man géwalu Macky Sall la duma leneen kooku Macky Sall moo war. est-ce que du fa mu ko féete la. ñoo xam fañ ko féete. waaye féetewu ko ci. confiance ci confiance ci homme de confiance. waaw am aussi nga jox ko yenn liggéey yi. mais président Macky Sall moom dafa wax ni secrétariat exécutif national li ciy dugal nit lu bari la secrétariat exécutif national nit mën na ci dugg ndax lan ndax dafa am gannaaw bokk ci parti ba pare am gannaaw maanaam ñu bari bootu ci ñoom ci moom kooku mën nañu rafetlu mu dugg ci secrétariat exécutif national mm-hmm. secrétariat exécutif national mën nañu rafetlu koo xam ne ni boroom xam-xam la ñu war a mën a tàttaan ci moom lu ñuy joyante lu sooxe kooku mën nañu rafetlu duggam ci secrétariat exécutif national mën nañu rafetlu ci dugg certificat ci dugg ka euh, euh, militant ci secrétariat exécutif national militant bu yàlla may wërsëg ndax politique am na ci ñu yàlla may wërsëg li donte dañuy def politique wërsëg bi leen yàlla may moo jiitu li ñu dugg ci politique yi amee wu ñu alal ci politique yàllaa leen may wërsëg ñu jublu président Macky Sall dugg ci parteem mu ni ñooñu itam mën nañu rafetlu ñenn ci ñoom bokk ci secrétariat exécutif national su ko defee muy secrétariat exécutif national boo xam ne nii ña ca bokk ku ci nekk mën nga mottali sa morom muy jur ay kàngam yu góor ci jigéen yoo xam ne nii man su ma doon tànn ku may jox massification di ko jox mobilisation man du ma tànn ki mu tànn damay tànn koo xam ne nii taxawul wax ni moom géwalu Macky Sall kese la du leneen yitteelu ko bu président Macky Sall bàyyee politique sax mu bàyyi politique man du ma jël kooku di ko jox massification ak mobilisation te ñeneen ñu ma dul tudd seen tur nekk fa parce que nekkatuma ci parti bi sañatuma cee wax. Mhm. lu dul su ma tolloo ci bind samay mémoire bu ko yàlla dogalee ma wax sama jaar ci alliance pour la république lan moo ko wundoon ak lan laa fa liggéey donc noonu la mbir mi tëddee kon du ñun li Farba Senghor naqariwuñu. lu li Farba wax nga wax naqariw la. sunu njiit bi dul tànn kàngam. bu wàccoog li tax ñu war a ko tànn jiital ko ci bopp parti du wàccoog loolu xam lu tax ndax jikko bi leen rek la fas sëñ Moustapha da nga koy dénk xaritu fas soo bëggee fas wi dund taaru lañ koy doyee fas wàccook moom parce que yàlla moo teral fas waaye boo ko dénkee sa xarit te xamul fas daf koy rey président Macky Sall lii sikkam ci wàllu politique ak ci wàllu doxalin ci wàllu digganteem ak doomu aadama yi mooy bu yoree fas war ko dénkaane du ko dénk xaritu fas xaritam la koy dénk donte xarit bi xam na ni du xaritu fas xamul dara tamit ci fas loolu loolu problème la moom tey ji euh, mu nga ca New York ci soixante-dixième euh, assemblée générale euh, bu Nations Unies ñu do do na nga fa dogalee gis nga ko yuuxoo yeeg mm-hmm. loolu moom ban lecture nga ciy def mënoon na ñàkk mm-hmm. mënoon na ñàkk xam nga xam nga kañ la doon ñàkk. Mhm. su fekkoon ni président Macky Sall ñeenti téere yi mu wax ni nañ ko móol nañ ko bind nañ ko xalaat bind ko móol ko te mu aju ci ay kàddoom maanaam ay discours am diir bi mu nekk président la république pàcc bu njëkk bi moom moo aju ci lépp luy pénc di kuréel mhm. di di institution de la république aju ci jàmm aju ci sécurité aju ci développement ñaareel bi moom moo aju ci koom réew mi ban xar kanam lañ ko war a jox pour sénégalais yi mën a am koom mën a yor seen njaboot ñetteelu pàcc bi mooy lépp lu aju ci nekkinu doomu aadama ñeenteelu pàcc bi mooy écologie environnement li ñu wër ndax sell na ndax ngelaw li sell na ndax ndox mi ñuy naan sell na ba du jural jàngoro ñeenti téere yooyu yemul rek ci gis-gisu président Macky Sall ci biir senegal waaye ñun dañ ko yaatal ni gis-gis boobu ci biir Sénégal buñ ko bëggee yaatal ban nan lay mel pour Afrique yépp parce que li ñu jàppoon mooy téere yooyu ñeenti téere yooyu su génnoon fépp fu mu dem ci àddina ñu ni ko sa ñeenti téere yaa ngi de te da nga ci junj loo xam ne nii yoon la bu Afrique mën a jaar pour càmbar li mu doon ba pare labbali fas bi nga xam ne nii. monsieur yaakaar nga ne affaire bi téere téere saafara. non mais moom ma pare. Hmm. mais moom ma pare euh, li ñu ñun li ñu bëggoon a liggéey. te secrétaire général la présidente de la république Maxime Jean Simon moo ñu ko sant jëlee ko ci président Macky Sall ñuy seen ndaw ñun ñu dox yónent bi gis nga téere yooyu su fekkoon ni président Macky Sall ñun lañ ca namoon te mu d'accord ceeg ñun ba yàgg ba mujj gi mu won ko gannaaw ne ca leneen la ko sànq su fekkoon ni ca loola la nekk ak la téere yi. ëmb ak yoon yi téere yi xàll ci yorin mhm. ak ci doxalin ci biir Afrique ak jàmmarloo gu Afrique war a jàmmarloo jamono am xalaatu boppam bu mu dul jéggaani feneen su fekkoon loolu la doxal kon bu demee Nations Unies dañ koy tàccu waaye kenn du ko fa dogale di ko yuuxu. kon dafa wàcc yoonam su ma yoon lu tax. Mhm. ndax juróomi nit ñi watu nel ñii watu jubbu njóobeen ñii watu leneen ñoo ko dar wax ni lu sotti am boroom. Mhm. ñun boroomi pexe lañu. sunu kooma nu intéressé boroom cravate yéeg boroom téere yéeg boroom yiw yéeg nitu diine yéeg dañuy dañuy sonal yow lañu fal faluñu leen ñoom kon doxalal waaye la mu doxal dafa waroog la mu diggee woon ca njëlbeen ga. su ma su ma déggee dañ ko jël en dañ ko jël en moo ko nangu. moo nangu ñu jël ko en dafa am benn bindkat bu mag bu mag a mag a mag hmm. boo xam ne nii mi ngi tudd Nicolas Machiavel. bind téereem bu rëy bi mu bind tuddee ko le prince téere bi tuddul woon le prince mi ngi tudd opuscule pour les gouvernements maanaam gouvernement naka la naka la war a doxale ci am réew ba réew ma naat loolu doon turu téere bi waaye mu njëkk ñu tuddee ko le prince maanaam buur bi dafa wax ni xam nga fii Sénégal dañ naan buur aayul dag yaa aay Nicolas Machiavel di italien di philosophe dund 16e siècle nee na buur a aay dag ndax lu buur def dag ya def ko ko dafa fekk loolu méngoog jikkoom. Hmm. du def lu ko lu ko du def ko dag yi diggante méngoog jikkoom du def lu dul lay jikkoom. amul benn buur bu naan dag dag ya aay rek tax dag yi di ko def loolu ko neex dé lu leen neex déedéet ndax dag yoru yoru ñu doole ji doole ji moom la ko yàlla jox. Hmm. te dag bu mu ne ci toppal nga topp. dag bu mu bu mu la gisati dootu la gis dag bu mu wax ni joxe ndigal ni dag sàngam bëggatuma ko gis. ci sama entourage maanaam ci ñi ma séq deetu ko gis waaye bu fekkee ni moom dafa nekk président deuxième mandat pour naan ataaya mais dag yooyu ñoo koy intéressé waaye la mu la muy def du dag yee ko def loo jikkoo ma ko def loo kon président Macky Sall dafa dem ba ci biir mu soppeeku jikko dafa dem ba ci biir dafa dem ba ci biir président bi yoroon projet universel projet africain projet mhm. national ak projet africain disons projet national mu génn ca nekk président pour naan ataaya. na naan ataaya pour naan ataaya kon actuellement day naan ataaya. pour naan pour pour les. yow gisoo réalisation naan ataaya rek nga gis. mandat mandat jeexitalu mandat bi pour naan ataaya rek la. dama ñu la wax naa ko ba mu noppi. juróom-ñaari at yu njëkk yi. Mhm. la ma ca junj moom lay liggéey ba deux mille vingt quatre. Mhm. booba suñu diggante rafet na ndax. la taxoon ñu mu mu tàllal loxoom ñu jël suñ loxoom suñu loxo teg ca loxoom néew ma yi nga woon ci lépp waaye bari na loo xam ne ni moom méngook li ñu tudde réalisation tey li ñu rafetlu ci bilan mais doyul na continuer am fayda am fulla xam ni moom la ñu fal te bu ëllëgee moom la ñuy laaj bilan duñ ko laaj keneen ëllëg moom la boroom di taaj mhm. ni ko réew moom la joxoon noo ko bàyyi mhm. moom lañ koy laaj ëllëg moo tax dafa war a bañ ay dak di ko def looloo xam ne nii boo ko seetee ba ci biir li ko indi rek mooy ku wàcc yoon bi nga xam ne nii moom la digge woon ni du ko mës a wàcc. seen intérêt bopp rek. seen intérêt bopp. voilà yow la nga doon wut doon tàllal sa loxo teg na ko ci loxoy Amadou Ba. waaw euh, naka nga gisee euh, profil bi ñu tànn après ñu bëri génn nañ tàccu d' accord ci ànd ci. waaw d' accord ci ànd ci mais man su ma fa nekkoon ñu laaj ma sama xalaat dama naan d' accordu ma ci. d' accord lu tax d' ci Amadou Ba parce que Amadou Ba doyu ma. lu tax doyu la. bokk na li tax man ma samp sama nënd. Mhm. ñàkk ko doy gu ma Amadou Ba doy. ak ñàkk doy gu ma ñeneen ñi doy. foo teg loolu Amadou Ba personnellement. waaw xam nga danañ dugg lu yàgg yàgg danañ dugg ci mbaaxu yàlla yàlla bu kenn manqué danañ dugg ci campagne électorale jàpp naa ni itam yéen nga xam ni yéenay presse bi di média bi da ngeen góorgóorlu waslu ak ci wàllu média wàllu démocratie ba ngeen imposer débat waxuma ni débat yi am. Hmm. parce que dafa neex ñi samp seen nënd ñi dañ bëgg Sénégal yónni leen waay waay. góor wala jigéen mag wala ndaw bu kenn fekkul mu ngi nelaw ñun la jógal ñu jox la senegaal yow yaa toog xool sa bopp firi sa bopp firi li nga nekk ni jàkk réew mi am yéeney dox yéenentu askanu Sénégal li la desee ci coon ci kattan ci xam-xam ci dal ak ci sago ndax yàllaay mayee sago am na ñu ko xañ ñi xañ sago yépp yal na yàlla dellu jox leen sago nga ne danga nga bëgg nekk da nga bëgg dox seen yónnent waaye mais sa beneen moroom di góor di jigéen ñi dafa bëgg a dox yónent bi waaw bu fekkee ni ñi bëgg a dox yónentu senegal dafa nekk takk dafa nekk lim bu takku nan lañu ñu mën a seggee segg bi bokk na ci parrainage maanaam est-ce que rafetlu ngeen Moustapha nekk candidat wala Abdoul Aziz Diop nekk candidat su fekkee ni lim bi rafetlu bu ñu ko tasee ci juróom-ñeenti région takku na nga nekk candidat ak leneen li ci aju su ko matul mënoo nekk candidat waaw mais ñu yem rek ci atte leen ci parrainage nan leen atte ci xam-xam atte leen ci ngor atte leen ci diine atte leen ci gis-gis bu rafet di seen programme mais loolu mënu leen ci atte lu dul bu ku nekk jibalee lay lay mébétam ci réew mi ñu toog waxtaane réew mi kooku mooy débat démocratique te kenn waru ci jiitu rajo télévision sénégalaise ndax yoonu réew mi charte réew mi moo teg loolu ci ndoddam moo wax ni yow rajo télévision sénégalaise da nga war a respecter li tubaab tudde pluralisme politique ak pluralisme syndical maanaam danga nga war a rafetlu syndicat yi du benn rek te léeg-léeg ñu waroo ci gis-gis da nga war a rafetlu ni parti yi du benn rek coalition yi du benn te léeg-léeg ñu waroo ci gis-gis waaye yow télévision sénégalaise radio télévision sénégalaise bi nga xam ne nii askan askan bee la moom li ngay dunde di ci liggéey as ci li ñàkku askan bi la nga wàccoog sa cahier des charges bi la wax ni ni Sénégal bindoo li xar kanamam ci wàllu politique ak ci wàllu syndical nga fexe rek ba nit ñi daje. waxtaanee ko mais foofu nga nekk noonu d' accord nga ak ñun ne rajo télévisée wàcc na yoonam bu yàgg. yàgg na parce que bu ñu demee ba ñuy def direct ba ñuy tànn keroog Amadou Ba tamit. Euh, yàgg na loolu doy na waar. yàgg na ba mu wàccoog moom yàgg na mais loolu waxtaanee nañ ko secrétaire exécutif national bi nga xam ne. yow yow lan ma si nekkoon sa position. ba nga doon sama position mooy ni président Macky Sall du ñun bi yëpp tey bu koo ci laajoon ni suñu bilan baax na mu ni fi gën bilan ba Sénégal de Sénégal ba léegi président jaaru fi réaliser li nga réaliser ma ne ko du loolu mooy sunu gis-gis te ñun loolu lañ bëgg a défendre loolu lañu gëm ma ne ko lu dox suñu diggante ñu séq kujje politique bi waxtaan ci ci bilan boobu te rajo télévision sénégalaise kenn bañ ko ci jiitu ci modéré débat boobu maanaam ci euh, dajale ñi nekk ci kujje gi ak ñi nekk ñi ngànk réew mi ñu yónnee ñi nga xam ñoom la ñu yónnee di ñooñu rajo télévision sénégalaise waru garam la comme ñun dañu rafetlu suñu bilan te ñun képp ku ñu jàmmarloo ci wàllu bilan dajeeg yow ci débat danañ la yanu ba biir weex ñun la tàyyi ci suuf lu dox suñu diggante rajo télévision sénégalaise organiser débat boo xam ne ni kujje gi daf koy séq ñi nga xam ne ni ñoom ñoo ñoom ñoom ñoo dox yónnentu Sénégal fii ñu toll ñu waxtaan ci bilan bi ñoom buñ ñu duma ñu xam ne ñun suñu bilan ay wax rek la suñ leen dumaa Sénégal nii ay la yéen yéen fi nekkoon di ŋaññ waaye ba ngeen jàmmarloog ñoom ci debaa dañ leen a dóor ba ngeen xool benn bërëb bu koroogee loolu bokk na ci luy suuxat démocratie ak luy dëgëral ñi nekkandi ci bopp réew mi ba ba koroog sénégalais yi ci seen coobare di leen soppi mais loolu doxul RTS doxalu ko. moo tax RTS ba ko waxee président après lu mu la wax. mu ni ana Racine booba Racine mi ngi woon ci réunion bi mu ni ana Racine ñu ni ko Racine dafa génn booba xam na dafa dem xëy na ci toilette wala mu am lu mu doon dox ba mu dellusee président Macky Sall yemalewu ko foofu dañuy rasin ndax ñëw nañu ni ko waaw mu ni Racine Abdoul Aziz day dafa wax ni comme ñun suñu bilan baax na lan moo dox suñu diggante ñu séq ak kujje gi waxtaanu bilan bi bu kujje gi ni ñun suñu bilan ñun defuñu fi dara ñu won leen ñu def nañ fi dara bu fekkee ni ñoom li ñu wax ñu defuñu fi dara ñun itam mënuñu layal li ñu fi def wala lu ñu fi fekk la joyanti ko wala ñu continuer ko bu ko roogee sénégalais yi buñ jógee ca boobu ñoom ñoo naan ah, ku jéggi day rafet nañu seen taxawaay ñi yore réew mi rafet nañu leen seen taxawaay wala rafet lu ñu seen taxawaay Racine ni ko Racine ni pat àdduwul réunion bi continuer mais bu ñu génnee xam lan Racine di wax président pour yey ko danaan ko ñun RTS suñu ko ubbee ñëpp dugg ñu séq débat bi ñu tuddee contradictoire comme ni ko Abdou Aziz Diop bëggee ñun majorité bi lan moo ñuy dese mm-hmm. ma ni ko li lay dese mooy cahier des charges radio télévision sénégalaise bi tënk rajo télévision sénégalaise ni ko ni Sénégal xar kanamam ci wàllu syndicat ak xar kanamam ci wàllu politique na RTS wàccoog moom ku jigi ak ñi ñu yónnee nekk ci bopp réew mi dañu war di léeg lekk ñu daje daje waxtaane réew mi ci werante boo xam ne nii xam-xam diine ak ngoro koy lal sénégalais yi dana tax buñ ca tolloo bu ñuy tànn nekk tànn boo xam ne duñ ci am jiixi jaax ok yaa yaa ngi woon ci Amadou baa nga ne doyu la doyu ma parce que profil bi pourtant ñu bëri nee nañ nekk na premier ministre ministre des finances jaar na fu nekk ah. ndombal tànk kan moo koy takkale kenn koy takkale muy président Macky Sall wax naa la président Macky Sall buy takkal ndombal tànk du jox buy joxe fas du ko jox xaritu fas xaritam la koy jox. loolu moo tax li ngay wax ci dénku la. gis nga ñi nga xam ne ni dañ doon yóotu. Mhm. mën naa tudd seen tour parce que mhm. léegi affaire bi leer na. Abdoulaye Daouda Diallo. Aly Ngouille Ndiaye Amadou Ba Abdoulaye Diouf Sarr am Mahammed Boun Abdallah Dionne Mame Boye Diao Mame Boye Diao ñooñu ak man mhm. ñoo doon yóotu parce que ñoo bokk ci coalition bi ñoo bokk ci alliance pour la république man la tax ma dem kenn deetu ko duma ci dellusi si mhm. euh, gis nga ñooñu man su fekkoon ni dama am tolluwaay ñu ni ma dama nekk ba léegi ci coalition bi ñu ni ma ci juróom yi kan mooy ngay tànn man Amadou Ba ndàdde lay doon. ah bon lay doon. ci ñëpp su ma doon def classement ci ñi ñu tudd. Mhm. Ali Nguy Ndiaye Amadou Ba Ablaye Diouf Sarr euh, ab Mohamed Boun Abdallah Dionne. Mame buy Diao su ma doon def classement. nekk instituteur ñoom ñuy samay élève ndàdde moom la Amadou di jël. foo teg président Macky Sall tànnati na ku dul xaritu fas dénk ko fas wi ëpp solo ci Sénégal muy Sénégal ci wàllu boppam.